moy sama serigne mang koy nuyu bu baax di ko di gëreum njabootam di gëreum porte parole am sëñ junior di gëreum njabootu serigne Cheikh yépp ndax xam ngeen ni bi ndogal bi ñëwé ci sama kaw bo ba légui kenn dégguma ma wax ci presse wala ma wax sax ci mbedd donc amel naa ko ngeureum gu meut seuk mom serigne Cheikh ndax mbokk la deret la serigne la maa ngi yónni ngërëm lu gën a tedd sëñ Sidi Makhtar Mbàkke xalif général di murit di ko ziar bu baax di ko delloo ngërëm ndax taxawaayam di ko delloo ngërëm ndax cofeelam ci man di gërëm njabootu Serigne Touba bu ma nee njabootu Touba duma bàyyi njabootu sëñ Cheikh Gaynde Fatma duma bàyyi njabootu sëñ Murtala duma bàyyi itam njabootu sëñ fàllu ndax macha allah bare na ci njabootu sëñ fàllu yoo xam ne démb ak biig ba léegi ñi nga may woy télé woo téléphone am na ci ñoo xam ne miinuma leen sax waaye woo nañ ma maa ngi nuyu itam njabootu kër Thierno Diouf Lambaye ndax ñoom itam ñu taxaw ci sama wet la bala may ñëw ci samay mbokk ak samay camarade de parti ak ñi ma seqal àddina maa ngi gërëm samay avocat seen mag jiite leen muy metre Doudou Ndoye Doudou Ndoye dañu ànd bu yàgg booba xale laa nekk ci parti socialiste mu nekk ministre la justice bii li xew amee dafa ñëw porte komba bi ci sama càmmañ maa ngi ak maître du Ñing sama cousin nga xam ne dès les premiers jours bi ñu ma commencé taqal dafa ñëw solo taxaw ànd ak man muy maître Babacar Cissé ànd ak sama mbokk sama jarabaat parce que Sénégal ñëpp bokk lañu muy Abdou Dialy Kane Abdou Dialy li boole wunu deret moo nu boole aussi di gërëm Ibrahima Ndiaye mi fi nekkul maître Mbaye Jacques Ndiaye ku nekk xam na taxawaayam ci man maître Seydou Diagne maître Borso Pouy nga xam ne sama cousine la di sama mbokk di sama deret maître Aliou Cissé ak dal Clédor lii Demba Ciré Bathily nga xam ne ànd nañoo ak man àndu mbokk ak andu xarit ndax koo àndal ñetti at te fayu la dërëm te kenn déggu leen war nga xam ne ñooñu gor lañu trois ans depuis le 12 décembre 2012 bi ñu may wax ci affaire phytosanitaire la ñu bare ñëw constituer te xëy na waxuma leen ko sax waaye ñoom ñoo ma yéene jàmm ak yërëm ma ndax ni ma di jigéen ñu sonnal ma ñu ñëw taxaw ci sama wet ñu ngi nii toog amu ci kenn koo xam ni Sénégal tey laay waxal yëkkati naa benn dërëm teg ko ci sa loxo parce que aw ma ko parce que tous mes comptes sont bloqués li ñu ma def defe naa ni bi Sénégal sante njaay ba léegi mosuñu ko def góor sax wala ñu koy def jigéen surtout jigéen joo xam ne amul ndey amul baay uuf njabootu ndeyam uuf njabootu baayam ànd ak njabootu ndeyam ak bàyyam di liggéey lu ëpp fanweeri at fanweeri at ku ko liggéey war nga mën a am teraanga ma bëgg a wax sénégalais ni leen man dama doon jàngale école 1972 73 la ba ministre d'État Assane Seck recruté ma jóge Sainte Jeanne d'Arc génn war dem université ma ne noonoo damay dem jàngale ci ndax sama papa man waalo waalo laa sama papa du fonctionnaire homme d'affaires la bu doon lijjanti comme dama am yërmande ci mom ma n'a naa dem jàngale ji pour buma amé sama solde di ko dimbalee loolu moo ma ci jangalé ma jangalé ba 1983 84 mané man est-ce que duma ma dugg ci affaire waaye bala may dugg ci affaire na demander disponibilité parce que lolou la règlement bi wax ma demander disponibilité en 85 86 laa ko am bobu Ibader am muy ministre de l'Éducation nationale ci la créé ma première entreprise boo xam ni sama rakk laa ci def turam muy Adja Oulimata Ndiong ma nga Dagana mu ngi woon fii ci Ndakaaru ak man suivante ma créé sama beneen entreprise bu tudd Le Diala Wali am carte import export may wax ak Sénégal ni premier marché bi ma am. Bobé Béthio secrétaire général de la commune de Dakar l'administrateur était un certain Oumar Sissé, administrateur civil qui est maintenant décédé nous avons dit jox marché muy ay bon de commande booba xam nga que que daan def exa poudre la doon ak désinfection yàgg naa ci lu am 30 ans nga koy def yàgg nga ci ci commencé à travailler. yàlla dimbale ma ci kattanam bureau de poste Sénégal yëpp boobu Ibrahima Sarr mooy directeur des postes direction poste yëpp maa ko gañe woon di ko désinfecté stade yi nekkoon ci Sénégal yëpp maa ko gañe woon di ko désinfecté fa tabaarakalu Sotrac désherbage ba ak lu fa mën a nekk ci wàllu désinfection ak désherbage ak dératisation man lañ ko jox Senelec liggéey naa ak ñoom sous Ibrahim Ndaw de 1994 13 ba 1995 Je commencé ci bi Samba Diallo directeur du Sénélec ah may liggéey Je suis lim parce que bu je ko limee lay nit ñi ci ak yonent ak Cheikh Tidiane dem kaso dem police mosuma dem gendarmerie parce que je lu je mës de ci je la koy de la il dimbale ma ma continuer sama liggéey di liggéey sama liggéey ba alternance bi am bi alternance ma voyage en Suisse gis benn kilifa bu brandir un marché ci assemblée nationale ni marché phytosanitaire c'est un marché de 5 milliards boo xam ne dañ ko joxe rek ko ko dañu entendre ma quelque temps après ñu yóbbu chez le doyen des juges mu inculpé ma bi ma inculpé sous contrôle judiciaire ñu yóbbu dossier ba chambre d'accusation, chambre d'accusation. jox ma dëgg ni fayuñu ko tout le matériel foti phytosanitaire yi ngeen di wax yéen journalistes yi dama bëgg tey mu leer ci seen bopp leer ci sénégalais yi ni dossier bii ñu ma tëjee woon kaso du dossier phytosanitaire dossier phytosanitaire doyen des juges daf ma inculpé placé ma sous contrôle judiciaire ñu dem chambre d'accusation chambre d'accusation jox ma dëkk loolu mooy dossier phytosanitaire yi ba léegi jeexagul xamaguma waali la xamaguma baaba la maa ngi toog di déglu ñu ni joojoo ma toog benn suba rek ñu convoqué ma gendarmerie biñ ma convoqué gendarmerie xalaatuma woon sax ay affaire kaso parce que man yàlla dafa ma binde lépp lu may def dama koy def ba mu leer ndax kuy liggéey fanweeri at te mësuloo liggéey lu dul ak état senegal kon war nga xam ne am nga expérience te liggéey bi ma doon liggéey sama waa kër dong laa àndal di liggéey sama jarbaata nga ne ñu tuddee monsieur Ndiong maa ko yar bi ma ko papaam di jox 16 ans la am maa ko jàngal liggéey stade yi am ci Sénégal yi fu ne dem na fa di déra di dératiser ba am tuberculose feebaru tuberculose sama beneen doomu ndey bu ñuy wax bay di jóg dafa gaañu ci dératisation boobu ma doon def muy ànd ak man di liggéey ci la jëlee feebar ba maara day taali yàlla moom ko donc man mësuma liggéey ak kenn lu ak sama famille sama rak samay rak laay wax ba xaw nga ne toog ñoo bokk ndey ak baay ma jël ñu ko créer entreprise ñu créer ensemble keroog ba ñu ko signalee jëm si yàlla Kader Fall signeel ko wane ni day dugg dans l'enseignement keroog laa ko wax ni ko teg ko ci souf ñu jël entreprise bi bu ci turu keneen kuñ ko def ci membre famille bi waaw man libre ma awma liberté bu toll na ma war a liggéey àndandoo ak sama famille mais chinois yi di ñëw naaru libanais yi ci réew mi mais ku ci nekk plusieurs entreprises familiales ngay am l'essentiel li ngay def na doon lu leer loo xam ni bu ëllëg si biir doo ci am yeddaange bi ñu ma yóbboo gendarmerie enquête ma ni blanchiment d'argent blanchiment d'argent lañ ma doon enquêté ma ne waaw ci dans quel sens ñu ne waa xaaral ñu ñëw bugguma tudd tur kooku dem dellu si am ku ko téléphoné mu woote bu mu yàgg mu génne ay copie chèque wan ma copie chèque yi ni ma yii chèque lan la ma ne ko yi effectivement chèque la yu ma euh, projet jaxay fay mu ni ban ak ban la ma ne ko bii chèque tante la bii chèque bac à ordure la bi chegu motopompe la mu ne ma est-ce que les livraisons ont été faites ma ne ko toutes les livraisons ont été faites mu ça sa entrepôt fu mu nekk ma ne ñu def une délégation ñom judiciaire dem kolaban ci entrepôt yi dellu si maa ngi toog kooku ni ko dama ne tout le matériel restant ma nga fa

ma degoon ko nag ci loxo yàlla ak yonant ak Cheikh Naam Tidiane ndax biir na ma ni man defuma dara lu ñu may tëje kaso billaahi wallaahi tallaay ak war ma Cheikh Naam Tidiane Chérif defuma lu ñu may tëje kaso waaye ma ne xëy na sama destin la parce que yàlla lu muy dogal ci nit kenn mënu ci dara ma xamal leen ni yéen waa Sénégal la ñu ma joxoon ma liggéey ko amul benn manquement bu ci am PV de réception yaa ngi fi attestation de bonne exécution yaa ngi fi ñi ma joxoon marché bi ba ñu taxawee tribunal ñoom ñëpp dañu taxaw wane ni am na ñu fa nekkoon ci yéen que tout le matériel a été reçu ndax kofu ministère des finances lu muy présider koo xam ne représentant projet ba la ko joxoon taxaw seen directeur administratif taxaw yow entreprise taxaw ñom nu attesté ni jot nañu alal ba sax ni ak diw ak diw ak diw ñoo bénéficier fi gisuma man fan la loubalé dara damay xamal Sénégal ni loubaluma dara ndax man dara je n'ai jamais été ministre dans un gouvernement je n'ai jamais été administrateur de crédit je n'ai jamais été directrice de société nationale Lalla Massanek, sénatrice en 1998 maire d'arrondissement gérée au mon budget conseillère de la république gérée mon budget secrétaire élu sénat bi je suis pendant 4 ans ou 5 ans secrétaire élu Je dama sénégalais lan lañ ma mës dénk ci état Sénégal loo xam ne man luubal naa ko ñu naan dañu lekk alalu réew mi ak dañu sàcc alalu réew mi loolu laa bëgg mu leer ñañ koy laaj mooy ñi nga xam ne ñoom lañu dénkoon ay cër ak ay teranga ma bëgg a xamal waa senegal ni sama alal ji nga xam ni dañu wax ni dañu koy nangu nañu jël diggante xàcceeg dóor di yiwu yàlla xej na ci ndax man gëm naa yàlla sama borom ku ma gis sa xam ni tiitu ma dew ma sax bay tiit ku ma gis xam ni français wu ma ndax may jigéen ju yaayam dee bu yàgg mu uuf njabootu ndeyam ak baayam baayam dee ca 1988 mu uuf njabootu baayam ay doomu ndeyam am ci seen loxo néew ak seeni doom seen doole néew mu àndandoog ñoom di liggéey nga ne tey li mu liggéeyoon yëpp pendant 30 ans danaa ko nangu loolu dama am yaakaar ni ku ko def mu jig la giñ naa ci barke Cheikhul Khalifa ma xam ne yàlla am aéroport bu ne fanaan naa fa dama ne aéroport bu ne fanaan naa fa ci monde bi grêle bi du sotteeku sama kaw dem naa bay boot ay marchandises

aw ma càmmin juma waxal aw ma ndey aw ma bay yalla la am ak yonent ak Cheikh Naam Tidiane damay bàyyi yalla mu mu taxawal ma yalla lay bàyyi mu xeexal ma kuy jaay doole yalla la ëpp doole lima dal nak c'est inédit dans l'histoire du Sénégal jigen bo xam ne nga ko CREI qu'est-ce que j'ai à voir avec la CREI je n'ai jamais géré de deniers publics comme je vous l'ai dit tout de suite. Je n'ai jamais été ministre dans un gouvernement, je n'ai jamais été administrateur de crédit. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire avec la crédit Nous oublions ma procédure crédit, une procédure phytosanitaire, une procédure bi, nga xamni moma tajon kasso. Lolu war ngeen xamni amna mbir la amna lu ci laxasu Waye nak man ma teg lepp ci loxo Yalla. Alioune Thiam mii nga xam ni moo ma daan fekk ci kaso ba ak ñoom it li soog mbooj ñoom ñii toog ak in war a saar ak xale yii toog ak baxaw mi sama rak ak njaboot geek sama njaboot kenn mësuma dégg ma ni u wala ma jooy te pourtant de li ma dal góor gu mu daloon sax nga saalit waaye dama xam ne j'avais la forte conviction que defuma dara ndax boo deful dara dangay ngay dangay da ngay ngeen ma gisee nii sax ma toog war ngeen xam ne man dama happy waaw parce que defuma dara te biir na ma ni xaw ma kañ lay doon umutaal mas na ñëw mii toog nga xam ne sama seex di sama doomu ndey di jooy ci prison ba ma ne ko lan la mu ne Aïda tàngaay bi laa la xalaate ma ne ko ana Serigne Touba lu ñu ko deful amul sëriñ Touba amul lu ñu ko deful te pourtant de ba mu jógee ci loolu ca la marta martabaam gën a yokk ana yent yàlla Yuusuf ma ne ko Ablaye Wade mii sama leader ñaata yoon la dugg kaso ba yàlla dogaleen day nekk président de la république doon na ko kon nañu sant yàlla ndax lépp gën dee ndax am naa ay nawle yu ma doon àndal ay xarit nooy bokk mbubu nooy bokk collier nooy bokk teraanga ñooñu anañu tey kenn tuddutu leen kon man li ma dal dama koy teg rek ci loxo yàlla bien que nit ma ko teg nag waaye dama koy jébbal yàlla sama borom te yal na ma ko yàlla fajal ci barke Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif li ñu ma def wax naa leen ko de c'est inédit dans l'histoire politique du Sénégal jigéen juy liggéey daan dooleem amul ndey amul baay di dimbale njabootam nga ne tey da ngay foqati alalam yépp ndax man alal jooju du marché yi moo ma ko jox c'est mon bénéfice sama bénéfice la pendant 30 ans ku yeboo demal CBAO bi nga xam ni mooy sama banque nga laaj leen ndax ay Aïda Ndiongue mas na fa leb dara lu en 2012 may jënd ay moto pompe tracteur d'une valeur de 2 milliard 700 et quelques. ñu complétel ma 000 francs CFA ma jox leen benn bon de caisse 1 un milliard ni leen mooy seen garantie mosuma CBA. CBAO dara dara dara dara ba ma commencé ba léegi barke Seydina Mohamed mooy sama seul banque 72 73 lañ me recruté dans l'enseignement Il logé loger sama salaire pardon s'il vous plaît Il logé loger sama salaire bi ma commencé entrepreneuriat aussi CBAO laa ubbi samay compte bancaire xaalis bii nag ñun dañ koy jël du xaalisu Aïda Ndiongue de Aïda Ndiongue moomul xaalis bi xaalisu ay entreprise la xaalisu ay entreprise la Aïda Ndiongue daf ko bokk ak ay nit doon liggéey ak ñoom ñuy ay xaleel ñii di ay jaboot ma jël nekk seen costion morale et financière ànd ak ñoom di liggéey ñu jël seen alal dénk ma ku ci waroon tabax kër pour sa njaboot jotagoo ko def ku ci waroon ni da yaakaar am sa projet bopp jotuloo ko def kon bu ñu ko jëlee du ñu lor ayda Ndiong rek njaboot gi yëpp la ñuy lor ak ñi nga xam ni ñoo ànd ak man di liggéey ci biir entreprise yi ah ñu dem tribunal tribunal relaxé ma deux fois yéen a fekke jox ma non-lieu ñu ni def pourvoi le même jour nous mësul am ci àddina le même jour que le tribunal waxe verdict amul 15 minutes ñu def pourvoi en cassation loolu lu muy nuru c'est de l'acharnement injustifié et inqualifiable mais nak dama ko tek lepp ci loxo yalla ak yonent ak Cheikh Ahmed Tidiane ku ci yaakaaret ni sama xaalis bi pour financer parti politique la loolu da ngay da ngay joom dama bëgg mu leer man mënuma financer PDS parce que Ablaye Wade bamuy créer parti ah monsieur Sonko allez-y merci entrez donc Ablaye Wade bi muy financer parti ak di créer parti am man mang ci parti socialiste et puis parti démocratique ay miskine nekuñu fa ba man ma jël sama alal man juma ma and ko kook sama njaboot jël rek comme ça diko financer PDS pour lan yalla def njabootuma

jàpp ci sama loxo ni ma nun waalo waalo lanu ak doomu ndar dañu bëgg wurus te sa yaay dafa bëggoon wurus dama bëgg nga ñëw ma yóbbu la ci Sidi Diaw li ma leen di wax ñu ci bare xale lañu 1977 laa commencé tëggalu ay tëggalu wurus 1984 laa commencé am coffre à la CBAO coffre CBAO bu daté de bu date de 32 ans coffre tey la ñu dem def ma loo xam ne dem ci samay coffre daj ji ko daj ji samay coffre ba attribué ma coffre yoo xam ne moow ma ko daaj ji samay coffre te coffre yi dara nekku ci samay bijou de valeur rek moo ci nekk parce que man tubaab laa lu ma jënd foto naa ko lu ma jënd bu ma solo dama koy foto parce que ñi ko jàngale kat jeex ci man lu ma jënd ci boutique bu dee montre bu dee collier bu dee leneen solo naa photo pour denc ko lépp ngi ak man ñu dajji samay coffre yóbbu dama ni Sénégalais yi nañu xam ne man li ñu ma def de ma suñu ko def góor wala ñu koy def jigéen te bu ma amul woon ndimbalu yàlla ak yoon teg Cheikh Naami Tidiane ko supporter deekoon naa bu yàgg mais dama am ndimbalu yàlla ak ngëm-ngëm ni man defuma dara te gëm naa ci barke cheikhul khalifa barke rasulullah problème bi yàlla du ko bàyyi noonu mu ko ci àddina te sama alal jii ma sonn ak sama njaboot giñ naa ci barke salatul fatih bu ñu ko jëlee billahi ñi ko jël du leen ci ma bëggoon wax nag nit ñi ni waxuma tey waxu politique xasuma kenn man duma xaste parce que yàlla bindiwuma noonu j'ai mes convictions personnelles Ablaye Wade laa andal mom la nekkal PDS la, waye nag ki yor réew mi mouy Macky Sall Samarak la dañu ànd bu yag, wax na ko keroog ci keur Umutaan su ma nee moom di ma seetaan ñuy may toroxal te mu xam ma bu yag, xam ne liggéey naa bu yàgg du tere rek man duma ko dara mais Samarak la dara du ko jiiti ndax man gor la. te benn baax-baax bu ma ko xasee ba séq ak nit baax-baax boobu rek laay seet moom laay teg ci sama kanam tous les jours ba moo tax du ma xaste du ma wax lu ñaaw même bi ma nekkee PS sama papa daf ma mas a woo ni ma yaa ngi PS de mais Ablaye Wade mi xam nga noo demee ak moom ma ni déedéet mu ni ma nangam nangam nangam diw diw diw Mor Talla mi ko jur mook Samba si sa maam ñoroon doon ànd man ak moom Mbañ Wade kenn la. bu ko bul jéem ci àddina bu la kenn jaral ci àddina ak loo politique politique ak loo ànd ànd ak nit bu la nit jaral ngay xas kenn kon li may wax mooy man duma nit koy xaste je ne défie pas un état aussi parce que man je suis une femme d'état une femme d'état ne doit pas défier un état mais l'état doit aussi savoir raison garder parce que am na loo xam ne soo ko defee rek dafay am loo xam ne yaa daf koy yàq dootu ko defar te dootul man defaru donc maa ngi gërëm sa kilifa yi fi gis sama cousin Malick Ndiaye nga xam sama cousin ma mbokk ndey ak gis naa fi Assane Ba colonel Malik, Sissi, sama cousin Germain di sama mbokk nga xam ne suis ko fi indi ak mbokk ndax la ma message ma ko conférence de presse ah, ah Umar ñëw na maa ngi gërëm Umar Sarr ndax moom Omar sax bu ñëwul moom moom conférence de presse bi parce que maay moom mooy man ñëpp xam nañu suñu diggante Omar Sarr sama rakk la ministère am boobu ba ma cay laata liggéey ci Salif Bala laa nekk boobu moom nekkagul ministre moo doon directeur SICAP ma commencé 2004 di liggéey ak PCRP mu ñëw fekk ma fa kon man Omar Sarr dugaluma ci ministère boobu dama bëgg mu leer ci bëtu nit ñi j'ai commencé à travailler avec le PCRP sous Salif Ba Bye.